fekke sama kilifa gi may ma ma wax ci ci kanamu mbooloo mi wax joo xam ne bokk na ci secret yi bi yow sama kilifa gi bi démb damaa gis say rangooñ première ci njàlbeen bu njëkk rangooñ tuur say ba ma tàllalee ci sa kanam ndénkaam la nga xam ni ah buur bu jigéen du fi jàll moo ko yor moo ko bindoon muy sa ki nga bokkaloon lal ba bokk moom néeg bi nga xam ki nga bokkal sa gàngu naay muy sa soxna mbokk yu tedd yi yéen ñi nga xam ne yéen ay biddéew ak samaani àdduna nekk ci suufu borom aras gu mag gi démb rek dañ doon gaaral ah, soxna si gaañu ay këyitam ma tàllal ci sama kanamu kilifa gi ndénkaan lu mag a mag loo xame ni ci loxol ci loxol boppam la ko budu jigéen ba bindee da ko doon dénk ci ndénkaan la ci xale boobu mu foroon xale boobu nga xam ni moo ko yaroon muy Moussa wax joom wax sax ca bind ma dafa jóge ci xolam ba ma bañ ko liiree ba pare rek damaa gis ndaw sa di waat ci màggaayam di ñaan daal firawna Muusa daal bu ko dara jot bu kenn dàq Muusa ca bu ko kenn rey aha kay déedéet yéen ma rey Muusa na woo yàllam ko na woo laa wax dama ragal nag ay waay ragal naa waay. axaaf. ay ragal naa waay. ah kay damay ragal mu soppi seen diine feeñal ak mbon ci kaw suuf Moussa kon kenn du ko laal parlement bi loolu lañ d'accord Moussa kenn ko def lu ñan ñaaw Moussa kenn du ko rey kenn du ko dàq seen xuut dong la ñuy rey kenn du rey ku dul seen xuut yow buur bu tedd bi ndax da ngay waat ni doo laal Moussa nga dog nga daganal ñu rey seen xut mi yaa ngi bëgg a bàyyi Moussa ndax motal sa kóol rek sa soxna ndax soxna saa ko foroon moo ko yaroon seen xut bu dee loolu ngay wutal Moussa kon seen xut moo gën a yella ci loolu moo la gën a jege. rakk magam la magu sa sa soxna soosu la kon kii kay moo la gën a jige yow borom gàngunaay bi sama tànk yi sax ta taxaw mënuma sukku say oom ngir sujootal la su ma ko mënoon dinaa ko def kon maa ngi ñaan ci matal gi nga matal sa collègue ak sa mag sa sa si damaa bëgg daal nga baal seen xor mi comme ni nga bàyyee Moussa bu kenn laal Moussa noonu laa bëgg tamit seen xol bi bu ko laal ndax moo la gën a jege ci mbokk matalal kóllëre ndax sa mbokk la ci deret bàyyi leen seen xol mu de bu leen ko rey tey intervention bi kon baax na loolu la naa fi ñaa ñaanal naa fi ñaa ne ko daal billaay sama tànk bu metti loon damay ruk sukk raam nga jéggal kon ngal la waay bu rey seen xor mi ndaxte Moussa seen xot a gën a yeey ci moom ndaxte kat seen xor moom sa soxna soosu muy Asiyatu bintu Mazahim nga xam ne moo nekkoon sa lépp seen xut mii magam la kon yow seen xut sa doomu baay la yéen a bokk lépp kon daal bu dee da ngay bàyyi Moussa ndax ormaal sama jooju sa sa soxna soos kon kon la ca na a yella mooy kii kon gis ngeen ne ba nu Israël ñu ngi noonu di commencé génn seen kër di seet nag nu ñu génnee ndaxte comme déclaration yi Firawna def mooy jéem a képp ku ànd ak Moussa ñu fitnaal la génne la ray la ñoom ñu ngay jéem a gàddaay nag am lu ñu ak lu ñu am lu génn ca euh, waxoon nañ leen ni alhijra moom maadin ila yawm alqiyama gàddaay ngi rawale sa pas-pas rawale sa ngëm-ngëm day sax dàkk ba àddunay tukki ca waxoon nañ leen gàddaay nag mooy day ci diine nekk ci dëkk boo xamee nii sa diine ñoŋu fa sa pas-pas ñoŋu fa dañ lay yàqal sa diggante ak sa borom nga gàddaay ngir dem ci bërëb boo xam da nga fa mën a jaamoo yàlla wéetal ko kon Naafiya mi ngi noonu tëdd ci la lu deewam nekk daak daanaka ci ay waxtoom yu mujj ndeysaan moom moom Naafiya waaw ah daa mel nag Naafiya day bëgg am kan gis ne seen xot a ngi noonu ndax Firawna ba mu wàccee seen xot la mu ko waxoon mooy yow féetal ci Naafiya ak sama soxna soxna si génn àdduna kon moom léegi nekkatul chef d'état-major jiitetul armée bi léegi moom ci wetu Naafiya la nekk muy seen baay jooju ah, di ko taxaw nag waaye ñoom ñaar ñëpp dañoo gëm yàlla waaye daa mel ni dañuy bëgg am ay gan nag de daa mel ni am na leer guy dugg si de seen xol yëg na luy dugg si ndeysaan waaye tex Moussa ngi nii ñëw na teel na teew na ci yow musaa ñëw na moom dong la bëggoon a gis balaa muy génn àdduna maa ngi sant yàlla tey allahu akbar mbokk yi xool leen leer gën a muy ñëwee waxoon nañ leen yonent bi kenn du ko wane ah jàll si leen dugg si leen ci jàmm ak salaam marhaban bikum ahlan wa sahlan waaw soyez les bienvenus yaa marha yëpp dañ koy wax gis ngeen musaa buy ñëw leer gën a muy jollee ndeysaan xam ni anbiyaa yi moom seen lépp macha allah su Shaaban a ngi noonu mooy koy traduiral koy saaxiba Moussa xam ngeen ni yonti yàlla Moussa ah, ñi bi dafa desoon a set moo tax ah, mu amoon benn traducteur wala benn interlocuteur boo xam ni bu waxee rek mooy firi ñu ngi noonu ñoom ñëpp. mooy ñi nga xam ne asxaabu Moussa la gëm nañu Moussa ànd ak moom moom ki mooy sa bàyyi tax Naafiya moom tamit ba bàyyi Firawna la ndax xam naa fàttaliku nga ko ab jullit la doomam sinul moo moo ko woo ci lislaam mu dugg ci lislaam jébbalu mi ngi nii tëdd kon mbokkum Firawna la ndax bàyyi rakku bàyyi na la waaw ndeysaan dee nag daanaka da koo teewal li mujjee sàkku ci àdduna del muy mu yow mu gis la yow Moussa loolu daal bu dul woon loolu du ma la sàkku di la ngay ñëw ci guddi gi ma lay sonal waaye tamit euh, du ma la bàyyi nga dugg ci kër goo xam ne ci këru Firawna ca xam naa ne Firawna moom fu mu nekk mi ngi lay tëkk mi ngi lay bëgg rey moo tax sax ma ne naa topp guddi gi rek woo ndaxte lii naafiya mi sàkk woon mooy bala moo génn àdduna na la gis yow yonent yàlla Moussa moo tax Moussa ñëw ndeysaan loolu yàgg na ci kilifa yi nag yàgg na ci kilifa yi diine it ku la wóolu lool waaw jàppoon la ab sëriñam daan duyee ci yow njàng ak xam-xam Moussa inna firawna yataraddadu day sikk sàkk ci dal sa kaw nag day ragal nga ñaan ko yàlla yàlla ala ko comme ni mu alage woon Qaaruun waaye tamit dafa nekk ci diggante boobu ak diggante mu Qaar Haamaan bi nga xam moo koy gën a poussé ci yow rek waaye nga xam ni mi ngi sotti aw meram ci waa banu Israël rek ràññewu ci sax ku ko topp ku ko topp ku la topp ku ko topp ku la toppul ñëpp lay rey. xam nga ne digal na ay ay dagam fu fu ñu toll ñuy seet nit ñi ci dëkk bi bu ko defee dara du ñaaw du leen mën a laal surveillance absolue la déclenché bu nga xamee ni fu ñu toll ñu ngi surveiller mbooloo mi di surveiller nit ñi ndax yëg na moom li ak nguuram lee mu daanu moo tax yow tamit lay bàyyi xel fu mu yow Moussa moo tax ñëw laa attaqué waaye xamaan daal moo ko may jàmm lu ko Moussa tontu. amantu billah gëm naa yàlla firawnu yamuru bi tashtitihim sur ah, gëm nañ ni firawna dafay daf leen di xool fuñ ne yàlla waxi Muusa ci Haaroon ni leen nañu dajaloo wa yuwaxidu wijhatahum nañu wut benn jubluwaay wa ma huwa haadha alwahy ban waxi la ko lu ko yàlla wax yàlla waxi na Muusa ak mbokkam Haaroon nañu prépareel seenu nit ca misra ay kër ñu def kër kër yooyu nag muy jaam koy yàlla ndaxte xibla lañ jublu xibla penk bi ñu ci jublu pour pour julli la ndax wala ndax mooy xibla penk bi Ibrahim ak Ismaïl ak i sëtam ah, muy Kaaba gi ndax foofu la ci yàlla jublu ca néeg ba yàlla oromal ca màkkatal mukarram ndax foofu la yàlla xam na ni mboolo njaboot gi nga xam dañoo gëm Muusa ci banu Israël xamuñu fan la Màkka féete te dana jafe ci ñoom lool ñu jàpp kaaba ga muy seen jubluwaay ci seen penku comme ni ko Ibrahim doon defee ak doomam ya ak i sëtam mu yombalal leen loolu ngir gën mënuñu ko mu wutal leen ay bërëb yoo xam ne ay kër lañu saa yu nekkee ci biir misra rek nañu nañu jël euh, kër yooyu jublu fa muy seen penk ñu fay jublu di julli bañu jublu kaaba bu kër yooyu fu mu nekk mooy mooy barkat yi nga xamee ni ga deewoon nañ ci yoonu yàlla ca bërëb ba saxit ba foofu noonu ñu jëmm yu tell sedd yooyu yu sedd yu tëdd yu tedd yooyu tëdd foofu la xanaa mooy ñeen fukki njibarkat yu jóge woon ci ñeen fukki dëkk ya ñu tuddee woon dëkk yi ci seen su leen ko nee na ñi nga xam ne ñoo ñoom Firawna sant ñu doxal mbir mi léegi ñeen ñeen fukki dëkk yooyu mooy seeni jubluwaay mooy seen penk bu ko defee ñu yaatal fa seeni seenu càmm tasaare fa diine ci parce que Naafiya day jéem a jug ana Moussa Moussa ngi noonu nga jàkkaar loolu yow Moussa inni لقد رأيت وجه فرعون ma ne waat naa ci yàlla ne gis naa jëmmi firawna gis naa kanam ga jaune حين تذكر عنده saa ñu la tuddee rek day tiit moom firawna fadhhab ilayhi kon maa ngi lay ñaan nga dem ci firawna was'al an yursila ma'ak demal ci Firawna nga ñaan ko pour mu jox la waa banu Israël ñépp mbugal moom leen mbugal metti na moom na cey allahu akbar kon Moussa ñëw na ñëw nañ nag ngir waxtaan ak na nag ngir mu jox wa yow Moussa sama jaam nga say say saw nit samay samay jaam soo demee ci ñoom soo leen yóbbu kon kan mooy nekk ci sama tool yi kan mooy bay sama mbay mi nag nga may laaj pour ma jox la waa banu Israël. Haamaan daal defaral ma ci ban defaral ma ab étage bu mag a mag ma dem ci yàllay Moussa gëm naa ne sax Moussa waxul dëgg yàlla newul fenn amul yàlla yow Moussa soo yóbboo sama jaam yi kan moo may tabaxal kan moo may tabaxal bâtiment bi ma bëgg a tabax ba àgg sa yàlla ji rey ko yëgal ni danaa àgg sa yàlla ja ngay jaamu bàyyi ma fi. di ma ngir weddi ma sa si yàlla ji laa bëgg a àgg pour ray ko Moussa nee na yow mi jiite dëkk bi man de weddi ma leen xanaa man yaruma la nga nekk xale fii ci man musa nee na sama yaay tiit ga mu tiitoon ak force gin nga ko forcé woon ci la ma sànne woon ci dex ga xanaa ma yaruma la laax nga nekk fi ab xale nga sax fi ay jamono yaqulu Muusa Muusa nee na lawla dumuu imraatika la dabaxtani bu dul woon sa rangoñu jabar jooju da may rendi kon sama nit yi boo leen notul woon kon man do kon ci sama biir yaay laa nekk ak sama baay xanaa gisoo xéewal yi la yàlla defal yi ma defal nga dem di jaamuloo waa banu Israël def leen ay jaam nga jël seeni doomi góor di leen rey di leen forcer di leen di leen fitnaal di tàqaleeg seen yaay yaa def loolu eh yow mii yow kan moo la may fit nga naan da ngay yëkkati sa kàddu ci yàlla ju mag ji ba mu la sa yaay sànnee ca géej ga sa yaay ba mu lay sànnee ca géej ga dalaa bañoon nga ñëw taxaw ci kilifa gi nga xam ne moo yor sa xéewal yépp di ko weddi di jéem a xeex ak moom yow bii mooy ban teñu wuuteeg say wujj yow daal rey rey la la ñu war a def loolu mooy saate tuskare ñeenal yow Haamaan bëggumaa dégg loolu man daal Haamaan li ma la sant mooy tabaxal ma ef château ma àgg ci asamaani juróom-ñaar ma àgg ci yàlla Moussa ja gëm naa ni sax Moussa waxul dëgg Moussa nee na yàlla wan na la kéemtaani yat wax ñi barkat ya tamit sujjóot gañ sujjóot jëbbalu yàlla kéemtaan wan na la it kéemtaanu yat wa waaye sama loxo bi it mu leer buñ ko loxo ba bu ko tàllalee mu leer nañ loolu kéemtaan la man laa juma la dara sax sëñ damaa bëgg nga boole mag waa banu Israël rek ñu ànd jaamu yàlla ma delloo leen ci sharia islamiya ñu jaamu yàlla moom dong bu ñu bokkaale yàlla ak dara bu ko defee di nga am yiw di nga am yiw dama ne xamaluma leen jeneen yàlla judul man génnal fii Moussa génn fi jugal sama kanam juge fi waay jugal sama kanam cooy dàq na ko ndeysaan loolu day wóoru nit yàlla kenn ko dàq danga koy déglu lam lay gaaral nga jël jëfe mooy tax nga baax waaye gis nga ne waa banu Israël ñu noonu yollee ko rek ndeysaan ah Firawna Muusaa ne na ko leen laa bëgg jox ma waa banu Israël bu ko defee ma ànd ak ñoom ñu jaamu yàlla wéetal yàlla bu ko defee yàlla fey la di tàmbale tur yaram yërëm jaam ci at nag àllaxira njabootuk firawna jàppe euh, teg nañ leen li nga xam ne mooy ab bekkoor wàññi seen alal ndax rey ci ay bakkanib ndax ñu mën a xalaat dellu ci ginnaaw rek parce que mbas maa ngi noonu commencé wàcc ci ñoom allahumma inna naudu bika min aljununi waljudam walbaras wa sayi al mbas bu wàccee moom ñaan googu da caa baax waaw allahuma inna naud bika min aljununi waljuzaam walbaras wa sayil asqaam gis nga mbas ma wàcc na ci ñoom nag ñu ngay dee rek ndànk-ndànk waaye ñu delluwaat ci pare ba ba tey léegi nag dafa am benn concertation muy diisoo boo xam ni Haman moom moo war a dalal ay moroomam nag ñi ñëpp ci njabootam lañu moo war a seq ak ñoom wenn waxtaan nag daa ni dana am gan moom tamit de sama kilifa gi Haamaan ci woote bi nga woote woon ci jotaay bi njabarkat bi ñëw na bu mag bi mooy Moussa boo ko joxee ndigal rek ñu may ko mu dugg si. cey. ni ñu tedd ñi ca sell jotaay bii maa ko woote aalamu annakum ma arsaltum tastadawna hada saaxir al ibri yëg leen nag woote bi ma woo njibarkat bi muy Moussa damaa bëgg mu leeral dama bëgg ñu leeral suñu digganteeg suñu yàlla ju mag ji muy doomi Haamaan ji Firawn xam naa ne it am na ñoo xam ne maa ñoom ñoo bokk xalaat bi may bëgg a génne dama ko woo nag mënu woo yàllam damaa bëgg yàllam ji wax na ko woo tey ñi yàlla ji ñëw waaye tamit na ñaan yàllam ji nag bu woo yàllam ji na ko ñaan nag ndaxte mu dindi kii musiba bi bi dal réew mi lida fayni ansaxibu lan kon man damay daal di dem du ma fekk jotaay bi damay bañ ñu seede ma ci loolu fekk ma mel ni daal damay merloo sama yàlla ji bu ko defee ma dem dellu ji gën a jege yàlla ji ñaan leen li li dëkk bi di jànkonteel ci ay mbas mu jëlee ko fi man nag convaincu naa waaye duma damay damay dem nag waaye yéen daal ñu bu ñëwee nee leen ko daal na ñaan yàllam ji ndax musiba mu jëlee ko fi mbas mi jóge dugalal njibarkat bi ah ñoom ñu ngi woo Moussa pour mu ñaan yàlla yàlla wàcce dindi bekkoor bi lu tax kilifa yi duñ ko teewe Moussa ñëw na ah, jotaay bi leen doo nga tax ñu woote ko ngir mu ñaan yàlla yow kaw kaw bi dégg naa ko siiw nga sëw nit siiwal nga it ni wàcc li wàcc ci dëkk bi musiba bi loolu kéemtaani sa borom la pour tiital ñu loolu nga bëgg Moussa nee na waaw waaw yàlla buy yebal ci ay kéemtaan du ko def mukk lu dul ngir ragal aw nit ngir ragal loo aw nit ñu moytu te Moussa kon ñaanal ñu sa borom mu yëkkatil ñu balaa bi bu ko yëkkatee nag moom dinañ la gëm dinañ wuy ci sa woote dinañ yabar it waa banu Israël foo neex nga jëm faak ñoom ñu jox leen seen jox leen seen doom jox leen seen alal loo bëgg daal moom Moussa nee na ci turu kan ngeen di wax ak man ci turu Firawna Firawna yabal xam nga ne jotaay bu mag bi ñu amoon ci boroom yi ci yàlla ji. fi la lay génne Moussa nee na jox leen ma lu wóor benn xanaa liñ la wax dalaa doyul Moussa nee na kay bind leen ko nañ ko bind leen ko li mu bëgg lépp gis nga kon la ñu wax mooy na Moussa ñaan yàlla yàlla wàcce mbas bi wàcce balaa bi ah, yàlla jële ko fi ndax sonn nañu boo ko defee yow Moussa danañ la gëm danañ la yabal banu Israël ñëpp topp la gëm la Moussa ni jox leen ma ay preuve ñu ni ko preuve daal li ñu wax xanaa doy la mu ni ah waaye bind leen ko ñu ni kon bind leen nii Firawna nee na ci jotaay bi parlement bu mag ba ñu am lañ fa jógee mooy lañ fa jëlee woon mooy na Moussa ñaan yàlla bu ko defee ba banu Israël bi muy soxla ñu jox ko ñëpp delloo ko jaam yaag ñëpp ñu ngi noonu ndeysaan bu ko defee ah bu Moussa ñaanee rek bu mbalaa bi deñ léegi nag xam na ngi noonu ñu dal nii daal ñaawteef yi ñu dal li ñu wàññee ci alal yow sa sa mus sa musiba la yow Moussa gis nga de kon weddi na ñaawteef yi denc ñun suñu yàlla ji doon nga ko def ñaawteef si ak liñ ko jox ci ay ay jotu ak li nga xam ne ñaan nañ ko ko sunu yàlla ji daal yow balaa yi yow la woon dindig balaa gi suñu yàlla yi la kon weddi nañu kon lañ waxoon ak lañ lañ def wuute na yow njibarkat bi laa wax sama jaam yi duma leen jox nag xanaa xama liñ doon tabax yow su tabax yi su ma nga doon bëgg su ma ko tabaxoon ci sa yàlla ji laa jëm jëflanteeg moom bul wax man de jaax na demal seen soxlawuma la parce que contraire nañ ah ca seen parlement ba ce lañ jële woon seen jotaay bu mag ba ah ñu xool waaw ne li ma jaaxal mooy dex gi ni muy balle di tuuru rek lee li lii du inondation de tuufaan la de ma nga jóge ca dex yu mag ya di sotteeku lii ñu gis kay du jàmm ak salaam moom comme ñoom dañu ñëwoon Moussa bu ñaanee ñu topp ko war nañu bi Moussa ñaanee balaa bi ko xéewal ñëw ñu ni xéewal yi suñu yàlla yi la balaa bi mooy Moussa ndox maa ngay sotteeku de àgg ca xur yaag fépp mi àgg na Misra gépp dëkk yu bari daanu na lab na bàyyi ma yu bëri dee ay junni junni nit ñi ngi dee rek ñu bëree ngi dee xiif ga jàpp na leen musiba baa ngay gën a yokk ba ci sama kii te li ci gën a doy waar daawul xew ci jamonoy tàngoor man maay ministre bu mag bi bul fàtte ni man mii nag moom man maay njëbarkat bu mag bi. xew-xew yi yëpp ñun daal suñu bëggee mu deñ daal nañu gën a joxal haamun addiye ji rek suñu yàlla ji nañ ko jox addiye rek Firawna waaye li mu bëgg di ñaanloo Moussa ak yooyu di di féete di di wiiru ci Moussa pour mu ñaan di ñaan yàllaam man loolu bokkuma ci de man daa d'accorduma ci diina jooju bokkuma ci waaw Firawna mënta woote yàlla pare naan Moussa na ñaan yàlla dama ne yow toppal sa kilifa gi idhab ila Moussa wasalhu alladi demal ci Moussa ngeen ñaan ko de wax leen mu demee mu ñaanal leen dem leen bu ko defee digg la ngeen ko waxoon ni nañ ko jox aw nitam jaam yëpp ñu delloo leen ko dem leen déedéet mu Moussa kii du d'accord ci loolu de il faut ñu bind bindal bindal ca def ci kase firawna waaw demal kon la Moussa sàkkoon bind leen ko waaw signé ko ma loolu ànduma ca waaw firawna du woote yàlla ba pare ah mbas am balaa am mu naan day dem ci yàlla yi Moussa ji pour ñaan ko bu ngeen bindee daal yéen bind yéen loolu yéen la concerné waaye man bokkuma ca gis nga léegi kon la fa des mooy Moussa ñaan xéwal yi commencé ñëw ndox mi commencé bal yaa ngi dégg tool yi commencé naat xéwal yi commencé ñëwaat waaw loolu lañuy waxoon ni boo ñaanee yàlla yëkkati balaa bi daal waa banu Israël yëpp danañ leen ko jox ca danañ la gëm waaye ndax loolu la ñuy def waaw ndax loolu la ñuy def gis nga macha allah gis nga nature bi ni mu rafete ma ah waaye mu ah. ah mi li ni mbir mi ni mu amee musiba bi ni mu yëkkati ko balaaka bi balaa bi